wan ni ci ki yor bës bi jamono ji ki nga xam ne jamono ji moom moo pëñe bës bi na ko ñàpp comme ni ma pëñee sama mbubb mi ne da ko bàyyi ah dee waay dee <laughs> ki nga xamante ni nee na yaay nee day xar géej gi nag hmm? ñu naan ko sa majesté Kounkandé onze oh, mille cinq cent xool ko xeesal bu maasiwul <laughs> kii ñeme engagement la def waa Kounkandé guddi yi boo tëddee est yaa ngi nelaw maa ngi nelaw bu baax a baax ah kon boog yow taw nga tudd bay nelaw. di tëdd nag sama wetu jinne bi nag sama wetu soxna si nag. mu ni. ak rajan max rajan. waaw man nag damay laaj. looy laaj. li may laaj mooy Kounkandé ana lan moo ko ci neex ba mu naan day xar géej gi. dama ko bëgg a xar maanaam tey pour defar Sénégal. wala kon xar géej am nga yaakaar ne mën naa defar Sénégal. ah sa waay bootu yàlla mi ngi ci man di. ah bon mbootu yàlla yi mi ngi ci yow. kon lu tax nga tàmmu ci jouru tam xarit. nee naa naan yoomul ashura mooy feetu jullit ñi. bés la tam boo xam ne yàlla si lay changé ay programme kon loolu tax nga tànn ko. moo tax ma tànn ko. yàlla ak a mën a capacité yëpp lay produire. waa kon Kangal lan moo la dugg nga xëy ci tarara rek naan mën ngaa xar géej dañ maa branché may wax rek. ah sa waay mbootu yàlla mi ngi ci man di. moom de heure boo waxee rek mu ne la mbuutu yàlla yi mi ngi ci moom. moom ak yàlla. mais imagine toi ñu dem ba jour tam xarit kun kan ne war a xër géej gi dañu lakk ay daadaan. géej gi ala kulli xaalin danab damaa ko xar. loolu ruubee la. waa kun kan nga jàngee maa ngi ko tërbiyee maanaam sa beneen. mais est nga xam ba xam jàng mi ngi baax wala baaxul. ma essayé taxaw si kaw ndox. kan yow mi taxaw nga ci kaw ndox. essayé naa ko. Oh, <laughs> ok comme que nee nga taxaw nga ci kaw ndox kun Kande damaa bëgg tey jii nga defal ñu fi ay xar baax tey tey tey balaa jour tam xarit. dañ maa tere woon xar baax waaye dinaa ko def. yow dafa goo fi ay xar baax bañ la koy tere bi. jëloon naa fi benn lekkat bën na ko sotti ndox jàllut. ah kun Kande loolu moom yomb na de. gars yi dafaguñ ko de. ah kun Kande loolu moom dafa yomb trop yow sax xanaa bëgg na lekkat dong nga na ko ba plateau bu ñu la invité wala ay interview. kun Kande bëgg naa lekkat dong la fay nekkee. xanaa loolu rek nga mën. dafa désolé waay. <laughs> ban xarbaax ngeen bëgg ñu defal leen Benoît ban xarbaax lañuy wax wax Kounkandé pour mu defal ñuko sax lenn rek rapidement waaw ñu ngi tok fi plateau waaw fayal ñu lamp yëpp légui ben yoon ay ci ca Kounkandé fayal lamp yi ñun yow rek lañuy xaar yo ñuy xaar fayal ben cela eh ay len toy eh ah <laughs> non non li amul allahum kan de mbaɗum o awul no awulde wawaw kun wedde gis bokku ci waaye eh, ma ne ki nekk ci ci ci contact ban xale moo nekk ci contact bi foofu ay ma ne kun ma ne kun bu wax eh, kun kan dafay na non lii awul yu ko de fayu ko de fayu ko de <laughs> dama ne ban xale moo nekk ci ban xale moo nekk ci contact yi ban xale moo nekk ci contact bi waaye. bon waa weddi moom gis bokku ci. am na xale bu nekkoon ci contact yi di foofu ba bi mais lii moom d'accord ma ne kun kànne moo fay làmb yi man d'accord ma ko. yàlla lu mu doon may ko. dëgg la mais du ko may sa genre gi tamit. dëgg du romb nopp. waa kun kànne bu ñu demee ba jour tam xarit lébu yi taxaw te mu ne doo xar géej suma jun bi nag. danaa fay maanaam ay chalo pour ñu jàll gore ma xar géej. la ilaha illallah. bu la waagu rek tamit waxee ne doo xar seen géej gi nag. géej gi ala kulli danaa ko xar. dëgg la di nga xar loolu kenn werante wu ko. ñun loolu ñu mën a wax ndax ñun loolu la ñu gis. onze mille cinq ma ne bu la président waxee ne doo xar géeju Sénégal yi nag. danaa leen jàllale ñu jàll danaa jàllale ma xar ko. fermement. waaw mais dama ne Kounkandé na yaqin ne bi si yombul asura danaa danaa tepp ndox laa bis si na. seeteet stade bi nag sama yaram tàng na lool lool lool sax stade bi ma seyoon ñu ne suba a xàcc ko ko yom arafa. kañ mooy yomu arafa. bu ñu ñëwee maanaam bés bi nga xam ne suba la tam suba la tabaski. kun kan ne bés jot. waaw amuñu jot dañuy tabaski ci sax. amuñu jot dañuy ñibbi. tamxarit rek. léegi xam géej gi ni yóbbu ba tamxarit rek. parce que yaa ñu jox délai. problème yaa ngay démarré problème yaa ngay kun kan ne ma gis de du fi xar dara. Hmm? et eh, père toogal fexeel ba fi jug rek. defal lànk da ngaa wax léegi lu rëy ah, du ma ko bàyyi ndax dafa am lu mu wax yéen ñëpp déglu leen. Mhm. nga ne. dama ne kon kañ la jour tam xarit gëw ma man dina xar géej gi. réew mi ñëpp di ko déglu. waaw. le monde entier di ko déglu extérieur di ko déglu. moom kay mooy def buzz loolu kenn werante wu ko. foo tourné moom mooy coow ci nag bi ak TikTok. jox ñu weer jox ñu heure te si nag jàppal ñu bis. te nee nañu lépp looy bañ mu yegg si bu ko jàppal bis. ba jàppal bis. jàppal na ko bis nag. bis ba na. Kunkande taxaw di ma xol man bay ngone fal ma di ko xool ci rew mi. Ah. Kunkande xam geej gi ñeme la ko de. ñeme nga lolu Kunkande. maa ngi ciy dëggal la sama bopp dana ko xar. ya Cheikhul Ibrahima Baba Lamine Diassé. ah. père bi yaa ngi dégg. yaa ko laaj de. waxuma de. sañ na ma laaj nak mais nañ ko laaj ci ñaata minute la wara a xar geej gi sax. ci 30 secondes. lan 30 secondes. la roubé la. Kunkande 30 secondes wul de. as ba télé a waa mais père est-ce que Kounkandé mii géeju caaro gi sax mën na koo xar. caaro yi gan. caaro yi gën la ne Kounkandé est-ce que mën na koo xar. géeju caaro yi Kounkandé mënu koo koo gis père a xar géeju caaro gi kon boog ñoo ko déggandoo. waaw ah, man ñun lii nañu mën a wax Ndoye Ndiaye. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. boo ko defee ñu bàyyi maam mu ñan ñu tasaaroo bu bis tam xarit. mean. Um,